مع عيوبي ومع عفاسي من قادني سكور في أنفاسي مع عيوبي ومع عفاسي بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات allahumma taqabal minna xatma alquran wa tajaawaz anna ma kaana fi tilaawatihi min sawi aw taxriifin aw taqdiimin aw taaxiirin aw ziyaadatin aw nuqsaan aw taawilin ala xayri ma ansaltahu aw taajilin inda tilaawatihi aw kasrin aw saaxi lisaan aw wuquufin bi xayri waqf aw idgaamin bi xayri mudgam aw ishaarin bi xayri فاكتف منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير وسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الخفلة والكسلان wa aminna min azabi alqabri wa min suali munkarin wa nakir wa min akli didan wa bayid wujuhana yowma albaad wa aatiq riqabana min anniran wa yamin kitabana wa yassir xisaabana wa saqil miisaanana miisaanana bilxasanaat warsuqna wa sabit aqdaamana ala siraat wa askinna warsata aljinaan warsuqna jiwaara sayidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam wa akrimna bi liqaa'ika ya dayyaan allahumma ja'al al-qur'aan al-aziim rabii'a quluubina wa jalaa'a ahzaanina wa dhahaaba ghumuumina wa qaa'idana wa saa'iqana ila jannati an-na'iim allahumma ij'alhu aniisana fi al-wahsha wa musaahibanaa fi al-wahda wa musbaahanaa fi al-dhulma wa daliilanaa fi al-hayra wa munqidhanaa fi al-fitna wa 'asimnaa bihi min az-zayqi wal-ahwaa'i wa kaydi al-a'daa' ya rahmaanu ya rahiim اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك سادنا وثقة بك ذكرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين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 bismillah waaleykum alif laam miim zaalika l-kitaabu laa rayba fiihi hudan lil-muttaqiin alladiina yu'minuuna bil-ghaybi wa yuqiimuuna s-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun alladiina yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablika wa bil-aaxirati hum yuuqinuun ulaa'ika alaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muhtaduun sadaqallaahu l-aziim bokki jullit yi fi teew yëpp bokki taalibe yi gannaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant borom Touba di gën a di gën a yeesal suñu taalibe ci moom di ko yeesal di ko di ko di ko seereel ki ko fi nekkal mu Cheikh Ahmadul Muntaqa Cheikh Ahmadul Muntaqa ñoo ngi lay nuyu dina la li nuyu bokk yu baax yi nga xam ne ñoom nga boole loon ñu seq liggéey bi te ñoom ñëpp kenn ku nekk daf ci la war da ko tàmbalee ci. ñi ma àndal liggéey bi alxuraan ji muy sëñ Basiiru Mbàkke bu Cheikh Modou Fadal ak sañ Basiiru sañ Abibu ak sëñ Xaadi Jaxate ñi ñu àndal ñëpp ak waa Muqaddamatul Xidma ak mboolem di aji ci jumaa ji mboolem ñu ko daan limee ak sëriñ Hamsu Mbàkke bi nga xam ni moo jiite woon njàngum xasaayit mi moom sëñ Sohaybu noo ngi lay nuyu yow sëriñ bu tedd bi di la xamal ni na ko diglee woon bëggee woon ko ni bu ci suñ kàttan at àggul itam def nañ ci suñ kem kàttan ba jàpp nañ ni la nga digaloon def nañ ci luñ man bu dee wàllu alxuraan ji jumaa ji li fi teew bari na lool waaye mboolem jumaa yi ci dëkk bi ak daara yi ñu ci baree baree bari nii dëkk bi bindoo àdduna si bindoo ni moo tax ñu baree bari ña nga yem fa seen daara ak seen jumaa waaye ñu ci bare bari jokkoon nañu jokkoon nañu ñi yor liggéey bi xamul leen ni na nga ko digle ñoom koy defee foofu ci biir dëkk bi ak ak biti dëkk bi lépp teewul nag fii li fi war a teew lépp teew na fi bu dee wàllu xosaayit itam sëriñ xam su defee na ko na ko digle woon mboolem kuréel xosaayit diggal na leen kenn ku nekk fa nga nekk nga toog fa jàng fa lim yu baree baree bari def def ko ci ndigalul sëriñ bi kon sëriñ bi jàpp nañu def nañ ko ni ngi la ko digale woon noo ngi ñaan ci barke borom Touba mi ñu nekk fi wetam la la ci taali bi yëpp fasal njabootu sëñ Touba bi fasal la ko ci bokk jullit yi fasal la ko ci yal na la ko yàlla defal nu fekkee ñun ñëpp waaye nu nu itam muy bokki taalibe yi muy njabootu sëriñ tubaa gépp muy bokki jullit yëpp la nga ci fasal ci sab xol te ñëpp ñu xam ko yàlla na yàlla yàlla yàlla na ko yàlla defal ba ba mu kawee sa njort loolu dong lañ ñëwoon nañ ko ci nañ ko ci mottali di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan nga yàgg ñoo diggal ñu yàgg jëfe seen diggal tiir bu yàgg yàgg ci barkab Serigne tubaa ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maa uyubi wa maa ifaasi man qaadani sukura fi anfaasi